ci ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV lundi le 21 juin ci atum 2021 ñu xëy ñëw ak ci journal sunu lamb fekkati fa affaire yu am solo arène nationale yàqati nañ fa yeneen sees sakaase nañu ko démb maanaam ki nga xam ne ni moom moo di Pape Abdou Fall sànni na ci moom moo maanaam démb combat bi amoon ci arène nationale di blende moom maître ki nga xam ne nii moom moo di bébé Ibrahim moom moo ko daan par kaw da koo duma ba mu tëddal boppam waaye première journée day ade vox arena samedi bi ñu génn foofee ci arène nationale ki nga xam ne nii moom moo di Franc day dem na ci kaw Tyson 2 lu toll ak 32 secondes ci la ko battre moom Tyson 2 waaye la ñu xam ne ci xatum sunu lamb moom moo di lato il a travaillé la boxe coach avec ki nga xam ne nii moom moo di coach Jabon waaye ki nga xam ne nii moom moo di Ibrahima Mbaye la boo xam ne moom moo di Tyson 2 day respecté wul ki nga xam ne nii moom moo di Franc di adversaire am waaye ki nga xam ne nii moom moo di Franc pare pour ëmb seen wala ki xam ne nii moom moo di Lac de Guiers 2 ñaar daal jàpp ne war naa mën a bëre xam ne nii moom moo di Eumeu day revanche am contre xam ne nii moom moo di Balla Gaye 2 la mu xam ne moom moo di un combat soog moo di Mame Balla ak Mbaye Gouye xam ne moom moo di ministre des sports Moussa Matar xam ne nii moo doxoon ci diggante Franc ki xam ne nii moom moo di Tyson 2 19 juin 2021 moom la journal bi xëy biral combat baa ngi doonu ci xëtum sunu lambo

day si waaye cent parcelle ba day domine nañ ñi xam ne ni ñoom moo di pour cent Pikine ba jël nañ seeni 50 pour cent yóbbaale parcelle am 150 pour cent waa Pikine 50 pour cent rek la dese ki nga xam ne ni moom moo di arène nationale mbayang luum assuré tojote ko waaye dellu si naa ñibbi si naa kii di bàyyi ma ñoon xam na ne may capitaine bi yéen ñi koy seetaan lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu ma bi nga xam ne moo di Baol TV tudde kenn bu ma topp waaye ku jooy dëpp la ko tale kees xombal bamba yàlla tuddangal mag sew kabak laañaar kër daama kër sayar gàllundur ak patar kër yibra yasil sambe ngewel sambe kool dalak daaru xaboor siyaare sëriñ ba dellu si waat jàll ngaabu kajoor ak bawal siin saalum fuuta ak jolof ñëpp actualité lamb ak Baol TV ndakaaru njaay jël job sangomar fukki penkeeg ñaari ñëpp actualité lamb ak Baol TV jërë ngeen jëf ñu yendoo